digganteem ak jumaa ju sell gi doon ay yu néew marché Ocass bu Touba bokk a mag ci réew bu Sénégal waaye filee jamonoy xam ne bu yéeme lay doon daanaka buñ ne laa ay bërëb la yoo xamante ni dañ fay jënd jaay sax wala ñu fay jaay aw woo xam ne nii ñu ëpp ci askan moom la ñu jëfandikoo sa xel day daal di ngir li nga xam ne moom moo jëm ci décor ba ay ndox yu taa ay weñ yuy tak waaye itam ay yoo ay mbedd yoo xam ne nii benn oto mënu faa jaar ab tànk loolu la ñuy nemmeeku ci marché Ocass bu Touba jamonoy nawet bu yendoo taw moom daanaka kenn du fa mën mën a jaar ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat dañuy obligé sax di yëkkati seenum njaay waaye itam amuñu nen ñu def amuñu am pexe ba dañuy toltalaanu daal yëkkati seen ay njaay sax di ko teg ci ay taabal yoo xam ne ni tànk ya dañoo kawe bi la situation la waa marché Ocass di dund ñi nga xam ne itam ñoom ñooy kër yi dëkkee ci biir marché bi di yëkkati kàddu yu wàllu jëmale ci mairie bu Touba waaye itam da joxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ndox yi nga xam ne dañu koy utiliser ci biir kër itam foofee la ñu koy sotti ba tax situation bu mel nii la marché Ocass bu Touba dund mbalit mi daal di bëri lool benn système boo xam ne ni da koy évacuer daanaka mënuñu ko fee nemmeeku lu weesu benn oto boo xam ne ni yaa ngi koy gis ca njóobeen ñetti fan yu nekk mu ñëw daal di ramasser li nga xam ne moom moo di mbalit ma fa nekk daanaka mbalit ma day bëree bëri doon jóor ba toll ni ab bâtiment loolu situation boo xam ne nii autorité municipale yi war nañu cee jóg bu baax a baax moo ne biir marché Ocass bu Touba sax am na li nga xam ne moom la ñuy woowe ab assainissement waaye yooyu bile égout dañ koy fatt aku mbalit ba daanaka bu nawet bi jotee kenn du ca mën a jaalale am ndox ba tax ndox mi itam daal dajaloowaat daal di taa ci biir marché bi li nag di situation boo xam ne nii askan wi ñu ngi fësal ne autorités yi war nañu cee jóg ndax li lee nurul benn yoon ab marché boo xam ne nii wares na caa jaay aw ñam woo xam ne nii dañ cay lekk ba tax ñenn ji fësal ne yenn jàngoro yi nga xam ne nemmeeku nañu ko te xamuñu fenn fu mu jógee ci ñàkk a cet gi ak celal gi nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku ci yenn bërëb yu mel ni kii yi foofale fa lañ koy jëlee Touba di célébrer yoonu jëndkat yeeg jaaykat yi marché bi di génn ci am koom ci ay milliards yu takkoo takku daanaka bis bu yàlla sàkk te lilee mënuñoo fexe fexe ba am marché boo xam ne li nga xam ne moo dëkk bu sell bi di Touba war nañ cee toog def ci ab jotaay waxtaan bu yaatoo wayaatoo xool naka li nga xam ne moo jëm ci wàllu bu Touba a li nga xam ne ñooy commerçant yi ak ñi ñëw ci marché bi itam war nañoo xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen comportement ndax yenn ci kilifa itam bu ñu defaree yenn infrastructure yi ba noppi itam askan wi ñoom ñoo war xool naka la koy jëfandikoo lu ci mel ne canalisation yi nga xam ne def nañ ko ci biir loolu lee mën a fatt li nga xam ne nii moom moo di ndox mi nga xam ne moom la war évacuer kon mu mel ne defaraat ak seetaatu toogin ci ñaari wàll yépp ci diggante commerçant yi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee xool saw doxalin xool sab toogaay kenn kum ci doon ci autorité yi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo marché bi kenn ku nekk war ngaa xool sab toogaay defaraat li nga xam ne itam moom mooy sa jëfandikukaay ci li nga xam ne moom moo jëm ci marché Ocass bu Touba ba kenn ku nekk mën caa gis sa bopp itam ñu am marché boo xam ne nii day diñ ci li nga xam ne moo di tur wi mu nekk waaye itam ci dëkk bi nga xamante ne ni ci la marché bi di nekk muy Touba ndax Touba yooyoon na lépp lu nekk lu rafet ci àdduna